mane woon Thiel ndax dama du sam nawle moo tax ndax la waajo waxoon ku baax kari nga dama la bëgg ko xarit jot ak nawlante te amu ci benn loolu laa lay waxaat rek ndaxte yonente bi alayhi wax ni képp ko askanoo ci kurut baayam rek yàlla rëbb na ko kon yow daanaka atte doomi nga am ndax xamees na ne am na kilifa gu mag goo xam te ne mos naa jiite yoon murit radiyallahu anhu da nga daan wër naan mooy sa bàyyi ba loola mujj kalaate nga wër demaat ci geneen kër di fa nga dëkk man nag man Xaadim Buso eh, ki ma jur ki ko jur doomi suñu mbàkk Buso la suñu mbàkk Buso yaayam ak bàyyi suñ tubaa ñoo bokk bàyyi bàyyam ak yaayi suñ tubaa ñoo bokk ndey bàyyi kon génn ma fenn suñ tubaa maa ngi ci yàlla bu baax a baax ulaayika iddaad yi bokk fa nga bokk na boo ko bañee da fekk nga gën faa ñaaw la nga doon boo ko bañee daa fekk nga gën kër googu ngay gërëm la ndaxte suñ subaa daan wax naan diw de kum yaakaar suñ daaroo sañ jaay de kum kum yaakaar war suñ magalu gerte gii di weesu rek ñoom lañ ko tuddee woon ñoom moom ñu set lañ ñu am maanaa lañ waaye nag ma lay xamal ni àtteeb doomi njaaloo rek nga yor yow yow sa ndoxum man yi dañ ko sànni ndax yi tax ñu sànni ko mooy yonente bi sallam nee na ku askanoo ku dul bàyyam rek maanaam yàlla rëbb na ko kon boo gisee ñu araamal maam ñu araamal njaaloo ak wax yi doomi njaaloo amut baay maanaam dañoo bañ askan nit ci fu mu bokkut yow nag sa sa sa lépp mooy askan fa bokkut kon yow daanaka atta doomi njaaloo nga am kon yow doo nawle bu ñu waxal beneen bi mooy yonent bi sax dafa ne xaddu saaxir an an yoqtaa unuquhu am njabarkat ab atte moo ñu dagg baatam moo tax suñu borom wax ni wa yata'allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa maa hum bi darriina bihi min ahadin illaa bi idnillaah wa yata'allamuuna maa yadurruhum wa laa yanfa'uhum wa laqad alimu liman ishtarahu maa lahu fil aaxirati min xalaaq waxaan ni wa laa yuflihu saaxiru xaysu ataa am njabarkat moom du am ndam mukk ab atteem moo ñu rey ko man awma bàyyi juddu sëñ diw bay njaay ngir ay fas di fas ay ay taam ñu koy fay juróom ay taam ñu koy fay juróomi dërëm déedéet awma loolu awma ni ju dem di tër kasi di tas këri këri këri borom xam ni ci diine yi ba fu fu fu mu mës a jógee suñu baax mun ko jógal foofu man bokkuma ci yooyu eh, yow nag li ma la wax rek atteb doomi njaaloo nga yor kon dootoo am nawle beneen bi mooy atteb njabarkat moo ñu dagg boppam yow fi ne néew bi dox kaw suuf nga ndax njabarkat moom yonente bi sam nee na dañ ko a ko war a rey yow nag danga laal laa laak ndax danga ma ma laa xam te xamoo ma xam naa moo tax ngay wër di wax ndax ba nga njëkkee wax dama laa tontu moo nga jàpp ne xëy na damaa ragal wala dama waaye ku ma xam-xam ni moom fit moom ci man la yem maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax beneen bi mooy ma xamal la ni la euh, sa comme yow wax ci passé rek moo la neex sa soxna suñu dëkk la ko tas man man man de maanaam sama ngor ak sama diine weesu na fu may sacrifier sama doom ngir alali àddina xalaatuma ko ci àddina du ma sacrifier mukk sama doom ngir alali àddina du ma ko def li may wax xam ko baax a baax a baax nag euh, beneen bi mooy comme weerante la rek bisimilah nañ ci dem maa yow li nga xam ni maanaam dañ ci dem rek euh, amaa nag fen yi nga fen li nga wax wax dëgg yàlla daa nga fen sax fen yu tane ndax da nga fen fen yoo xam dafa day logique waaye fen yi moom daa logique bi ndax Omar Diagne mën naa ko jënd Omar Diagne mën naa ko jënd yow yaakaar naa ba may jàng sax xëy na su ma jubul mën naa am da ngay raam wala kii ndax lu mu gàtt gàtt mag naa la 15 ans yaakaar naa lu mu gàtt gàtt mag naa la 15 ans nga ñëw sama kër yorub tas seeg diw rek wax naanga mag maa la ay si rek yooyu yooyu du ma ci sori waaye daal li may wax mooy ndax xel nangu na man may sàkku alal ci Omar Diagne wala déet rek nit ñi dégg dinañ xam ndax xel nangu na loolu wala déet euh, débat bi nag nga bëgg ñu changé ko te mooy maanaam kii nga xam te ni nit ku bon la ku jóg attaqué Sëñ Tuubaa ñun ñu koy attaqué nga bëgg a wax ji jeex tax nga ne naa ci dugg ma bu ñu duggee xeex bi dana sama diggante ak moom ngir mu jeex loolu jeexalu ko dinaa la tontu waaye téew dañuy continuer xeex bi amaa nag fen yi nga fen li ngay wax wax day logique waaye fen yi moom daa logique ndax Omar Diagne mën naa ko jënd Omar Diagne mën naa ko jënd yow yaakaar naa ba may jàng sax xëy na su ma jubul mën naa am da raam wala kii ndax lu mu gàtt gàtt mag naa la 15 ans xel naa lu mu gàtt gàtt mag naa la 15 ans nga ñëw sama kër yorub taxi ak na man may euh, ñu changé ko te mooy maanaam kii nga xam te nii nit ku bon la ku jóg attaqué Sëñ Tuubaa ñun ñu koy attaqué nga bëgg wax ji jeex tax nga ne naa ci dugg ma bu ñu duggee xeex bi dina sama diggante ak mu jeex loolu jeexalu ko naa tontu waaye teew dañuy continuer xeex bi